production le Don King de l'arène sénégalaise nee na le premier janvier Balla Gaye 2 à Boy Niang le face to face Guédiawaye Pikine waa Guédiawaye ne ñoo yor lamb ji waa Pikine ne ñoo fi teg tànk waa Guédiawaye ne Balla Gaye 2 ñoo la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 jaar Ikotaf Balla Gaye 2 jaar Rue 10 Balla Gaye 2 jaar tali bu mag Balla Gaye 2 jaar tali gars yi naan ko Balla Gaye dinañ la tëbali gars yi naan ko déet Balla Gaye 2 waa Boy Niang ko waa Ama Baldé dàqi ko ma le combat du 1 janvier. 2022 fii ci Arène Nationale. noonu. ñaan na 19 heures 42. Ndiaye Tine Guiro Seras. arbitre bi da ngay wax ak ñoom. Guiro lu mën di xew moom dina la dagg moom. ndax da ngaa tardé bi ngay ñëw problème mu temps da nga faa tardé. baa ngay wax ñaari mbër ya li laamu nangu ak lam bañ ey eh, mu daan de sans frontière tey boo tee technique bi mu daan de sans frontière Gaston Production arbitre baa ngay wax ñaari mbër de nee na pare nga pare nga soufflé na samedi 19 novembre 2021 ñaan na kàppar na Guiro Seras ñaan na arbitre lu mu soufflé lan la Babacar wax na Babacar lu mu wax lu xew arbitre lan la ni waxante mu antal kan la coach ba coach bi lan la Mbay Ndiwane dara amul foofu de Ndiaye tina giro arbitre suuf la waat na samedi 19 novembre 2022 Mourou Anta ñu dem ci cubukaay la Tapha Tine ngi noonu Mourou Anta xoolal ko nam taxawee daa constaté wu la def ma ngay ma ngay ma ngi ca rakk ja waaye ñaari mbër dem ci saako ya hey xoolal cubukaay la xoolal fis na Gris Junior a ngi noonu waa Bawol nooyeetuñu de Ndiaye Tine ak Giro xoolal Tapha Tine Tapha ko ndeysaan ko sarante def avertir nañ Giro Seras avertir nañ Giro Seras arbitre suble waat na xoolal Tapha Tine ak Tapha Tine Junior cey cey cey cey cey cumi kaaya ñu ànd ak mbër a gën a sonn ñëpp tey la samedi 19 novembre 2022 fii ci arène nationale Fallou Ndiaye woote numéro 1 waaye suba bébé bismillah ak Siteu Ngor Ndiaye Tine Guiro Seras xoolal ñu ànd ak Ndiaye gisuma ñu ànd ak Guiro de cey lamb xeex ña ngay xeex jàppante jàppante jàppante wër ndomba wër na ko ndomba wër na ko ndomba cey Guiro Seras cey Guiro Seras Guiro Seras ak Ndiakhate wëraat na ko ndomba waaye Guiro Seras am na milité wër ndomba mu bañ wër ndomba day daanu ne da door Ndiaye Tine war na ndomba Guiro Seras xool cumi kaa nga ba ci kaw mu bañ Ndiaye Tine Guiro dafa wow de war ko ndomba taxul ko daan ko xoolal cumi kaa la bool bool ya jóg noonu ne yow jeex na waraat na ko door Guiro Seras a ngi koy door xoolal Tapha Tine taxawul xoolal mag joxul toogul taxawul taxawul xoolal ci bi kaara Papa Dia xoolal Papa Dia mu randa wër na booba xoolal xoolal nam def xoolal sama père toogul taxawul taxawul toogul taxawul wër na ko ndomba Ndiaye Tirigiro ma ngay door bañ na ne du daaru de lii métti xoolal Tapha Tine Tapha Tine nee na taxawul toogul daan ko moo ko bu doole xale Bawol bi am na ndam Ndiaye Tine ko jël bu rëy jël na xale Bawol bi eh Ndiaye Tine kontaan na. kontaan na. oh Baru kontaan na. jërëjëf Baru kontaan na jërëjëf. Papa loo wax. nga dafa am action yoo xamante ni jël mbir am na lu mën a am na bu bu fa tolloo ko jël boo ko bëggee parce que yow yaa yow yaa ma taxaw. Ah, na ak daw na dem. ànd ko opposé dem Tapha Tine ngi noonu di dem Bawol kontaan nan seen ndam ji am na ndam Bawol kontaan nan Tapha Tine daan na Ndiaye Tine Ndiaye Tine daan na jëlu bu rëy Giro Seras xaarim xaarim barki booy bi bëreegut mu def lan la. barke alxuraanul karim bi ko bàyyam di indi écurie ba man la ko teg samay loxo ne ma jàngaleel ma ko bëre. yaa ko jàngal bëre. billaahi walaay bëreegul. Giro Seras ak Ndiaye adversaire moo tax njaay di bëre Giro. mais difficilement la ko daane ah. difficilement Giro ndaanaan la kii tool doole ji yemut xeex bi yemut bu xeexoon booy bi dóor ko mu daanu. du benn. la wax. sant yàlla bu baax. di gën a war nun ci sant la ñu jëkk barke Serigne Touba Mbacké Ndiaye mi nañu ko ne jàkk fa mu jëm force dafay dem ci kattanu yàlla. fu mu jëm. waaye ay moromam. njaay ñan njaay ñi fi ne bëri na. non duñ non duñu lim. mais war ndoom dafa yàgg avant mu koy war. giro non ñaari ndaanaan lañ. njaay dafa lekk avance giro seeraas lekk avance. kon war da mën a yomb. bu yombee rek du ñaari jàmbaar mais giro seeraas jàmbaar la. champion la. loo ko bañ bañ bañ bañ. xam ne champion barke na. rek la kon Juro Seras Juro Seras góor la Juro Seras génne gu ma fa de. góor a soog na jël avance bi. ma daan ko ma pat daan ko arène góor a soog. génne gu ma de góor a soog na jël avance bi. ñëpp depuis trois ans ngi nii Ndiaye kuñ ko jox mu bañ Juro Seras gore jël avance am. kon nii yàlla na fi géej. Ndiaye bi mu jëm. ndax ñun suñu combat jafe woon na trop. punkal yi di kuy kuy lépp seet nañ leen ñu bañ waaw mais Guiro Sera ñu ngi koy sant ba bi gërëm jërëjëf ko defet dënnu moom ci boppam te nag sox ak marle nee leen ku ku daan ma jël la boobu. sox marle de. ku daan ma jël la. est-ce que doo dugaat parcelle. de non non parcelle xanaa xaa Modou Lo ko. ma fay jox ko ma kon du ma a kenn boog. non bëgguma tudd. ah kay. ah kay. Ah, waaw lu tax mu yàgg ci. boo boo fajee buntu Modou Lo. xanaa au moins am na ay rakk ak ay jërbaat yu daw ni ma noo ngi. il le faut combat bi loolu a xam li mu bëree. combat bi ni mu bëree bi ni mu yéexee war ko noo mënu koo daan. non def leen attention nag. def leen attention ne Giro ndaanal bërekat la. te Giro doole ëpp na ni mu toll. taay bi mu yor nii doole moo ko ëpp. bi ko Ndiaye weneen doomam bu ko buddee gis ngeen ko te Ndiaye sutu ko. xam nga Ndiaye sutu ko. da koo da koo ëpp rek mais sutu ko te Giro wax dëgg yàlla ndaanal la. giro bu bu nekkoon daanaan ba ko waa ji werandoo da koy buddi boobu bu sax ah waaw mais la ñaata yoon la buddi sa ñaata yoon mu kal ko kal boobu boo ko moytu da la ciy daan sax waaw parce que da koo waaw mais sant yàlla rek ah, ah, waaw waaw nee naa nee naa jox leen Modou Lo ngeen a xanaa daa am combat waaw ay rakam ak kay xanaa kay boo fagee kër boo fagee kër borom kër gi xanaa dina gone yi dem leen ubbil ko. waaw léegi fëgg nga kër gi benn kër nga fëggagul. waaw na ko gone yi ah xanaa déggoo ma li ma lay wax nii. laay Pythagore dégg Marley boog soog Marley soog ku daan na ñëw ku daan laa wax soxla naa la man damaa soxla ku daan. laay Pythagore ah kuy laay Pythagore est nañu ko moo daan gën ah ah dama man dama foog la garga waaw ah, joxuma garga doo wala góor a soog garga doo wala góor a soog. wutal a ku koy wutal adversaire. jàmbaar ma ne maa ngi nii man dawuma kenn dawuma daayuma jàmbaar yi ñoo wax man. jàmbaar maa ngi toog di ubbi naa sama mbunt. ubbi naa sama mbunt ku bëgg ñëwal. Gaston Production le Don King de l'arène sénégalaise nee na le premier janvier Balla Gaye 2 Boy Niang le face to face Guédiawaye Pikine waa Guédiawaye ne ñoo yor lamb ji. waa Pikine ne ñoo fi teg tànk waa waay ne Balla Gaye 2 ñoo la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 jaar Icotaf Balla Gaye 2 jaar Rue 10 Balla Gaye 2 jaar tali bu mag Balla Gaye 2 jaar tali bu bees gars naan ko Balla Gaye 2 dinañ la tëbali gars naan ko déet Balla Gaye 2 waa Boy Niang dàqi ko waa Ama Baldé dàqi ko ma ne le du premier janvier